jumtukaay wala bunt bi nga xam ne ci lay mën a jaare ba delluwaat ci boroomam ba maroo ak moom moo mu nekk lu am solo nekk loo xam ne farata la bu ñu demee ci alquran dañu fekk subhanahu wa taala muy wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm na ngeen tuubal yàlla dellu ci moom ndax yàlla seen borom jéggal leen faral len seni bakar, euh, ak seeni ñaawteef tàbbal leen ca àjjana ja nga xam ne dafa am ay dex yu fa nekk ci bis ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ànd ak moom nekk ñu gëm yàlla du leen gàcc du leen gàccal waaye daf leen di defal ak leer guy gu leen di leeralal ba ba ñuy àgg àjjana kon ci aaya boobu la ñuy déggee ne tuub dafa nekk loo xam lu war la ci képp koo xam ne jëf na bàkkaar moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne nit ki war naa tuub saa yu defee bàkkaar war naa tuub fa saasa waru ko yeexe fa tawbatul insaani fawran wajabat na nadaamatun ala dunubin xajabat mu ne nit ku mën a doon bu jëfee warna war naa dalitu fa saasa réccu bàkkaar yi nga xam dañuy koy yiir di def gàllankoor ci digganteem ak boroomam euh, kon tuub waree su ko yeexe waree su ko sàggane euh, ndax dafa am waxtu woo xam ne lañ koy nangu am waxtu woo xam ne bu ca xasee ba àgg bu ko nit ki defatee itam dootul am njariñ moo mu ne آه، فتوب لربك العلي خوف المقام فتوب لربك العلي خوف المقام من قبل فتوب آه، فتوب لربك العلي خوف المقام ولا تؤخرها لإلمام انتقام نغا توب غير راغال سا بروم بيغا خامني موم غاي نار تخاو سي كانامم تبول كو ييخه با la nga xam ne mooy juddoo ca tooñ nga dal ci sa kaw muy fayuk sun borom subhanahu wa taala mu ne kon su boobaa tuub ga dootul amati benn njariñ waaye dafay nekk loo xam ne day niroog mbirum ma nga xamee ne mooy mbirum firawun bi nga xamee ne na ci kéefar nuur ci ak mbew ba alkane dikkal ko mu doola wax ne gëm naa ki nga xam ne la banu israel gëm waaye lañ ko ci tegal mooy xanaa da ngay jekki ba léegi nga xamne ci moy nga nekkon di yak ba alkandi dik nga soog di tuub kenn du ko nangu motax ñu nekkon kon da fay war sa yo xamé ni nit ki def na bakkar ci waxtu wam ko defé rek tuub moy rek bayyi nit ki bayyi bakkar bi mu doon def te def ko ci ciobarem bayyi ko ci ciobarem ngir ragal yalla ak magal jëmmam lolou serigne bi wax ne haqiqatu tawbati tarku zanbi sabaqa mithluhu li wajhi rabbi ala ixtiyaarin laa ka mislil bakami wa daa'i farjin wa aman wa samami bal tarkuhu faqat bi taazimi al azim wal xawfi aydan min azabihi al alim tuub dafa am ay chart tuub gu sell bala ñuy wax ne tuub gi dafa sell dafay am ay chart yu ciy daje ñeenti chart mooy tax tuub gi sell bay taxit suñu borom di ko nangu bi ci njëkk mooy kii tuub na bàyyi bàkkaar bi muy def waaye dëkk ci def bàkkaar bu noppi naan tuub naa te li ngay def bàyyiwuloo ko kon léegi loolu dee su ko tuddee ak tuub bu ko bàyyee itam na rëccu di metti lu def gi nga xam ne defoon na ko ko fu mu toll nay sax ci saa yu ko fàttali ko na rëccu def ga mu ko defoon ñetteel bi mooy na fas yéene li ko des ci ak dundam dootu ci moyeti sunu boroom bu ko seytaane manee ba moyeti ko it mu dellu tuubati rek waaye bu mu duma tuub ndax suma ma tuubee damay dellu ca la ma defoon te kon loolu day yàq tuub bi waaye nay tuub rek te fas yéene dootu ca dellu bu ko bakkanam manee wala seytaane wala aduna wala bànneex it na tuubaat rek sëriñ bi ni ngi wax ne wa tarkuka tawbata qabla an taud ila al maasi kaydu iblis al marid nee na bañ a tuub ngir ne suma tuubee damay defaat li ma defoon li ma defoon kon na bàyyi ba man ko bàyyi nee na loolu sax taxam iblis la bu muy def ngir gën a xiirtal nit ki ci mooy gën ko cee nuural ñeenteel bi mooy ki tuub dafa war a delloo tooñ yi nga xam ne tooñoon na ko àq yi dox diggante borom moroomam yépp daf ko war a delloo kum tooñoon jël alalam wala mu teg ci ab lu bu tuubee alal jam jëloon warna na koo borom, boroom borom fekkee boroom a ngay dund su fekkee borom dundul war na koo jox ña ko war a donn su fekkee ñooñu nekkuñu fa kon warna na koo saraxe te yéene yool ba ñam moomoon alal jooje su fekkee dafa waxoon nit lu ko naqari mu jëf ko ko sart bi mujj ci sarti tuub yi muy ñeenteel bi mooy ki tuub dafa war a delloo àq yi dox digganteem ak ay moromi jamam lu ci ca delo da koy delo bu alal kon war nako delo borom alal ji mu ci dudd coobare yi wala tayu bakanu borom war nako delo su fekkee mi ngi dund su fekkee dund war nako jox kako wara don su donn ñoo ñu ñooñu ñu war nako saraxé saraxe te yéene yool ba ka momon alal ji su fekkee lu mu waxon lu mu ci darub jamur la wala mu jëf ko nit te mu naqari ko war naa dem jégglu ko su fekkee kookaa ngi dund su fekkee kooku dundul wala mi ngi dund sax waaye xëy na lu tax mënta dem kon na xam ne am amel na ko ko bor ak àq joo xam dana ko ko fay bu ëllëgee kon na góorgóorlu ci jaamu yàlla bu baax a baax fexe ba am tuyaaba yu bari yoo xam su ëllëgee su taxawee ci kanam boroomam buñ ko amu am lu mën a faye kooku nga xam ne moom la amel àq jooju te mu dëkk ci di jégglu yàlla fu mu toll noonu la ko sëriñ bi binde ci ay téeréem rawatina ci aljawhar nafis tuub lu am solo la ndax mooy musal nit ki ci ay bàkkaar moo koy fegal moo koy teggil gaaf gi nga xam ne ak lor ji nga xam ne mooy dal nit kuy jëf bàkkaar bu ñu demee ci daa daañu fekk sëriñ bi di ñu wax ne di ñu wattandikuloo bàkkaar te mooy jëf lépp loo xam ne yàlla daf koo tere wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bàkkaar day wowal xol bàkkaar day wowal xol xam nga ne xol day tooy ak a wow su xol wowee mooy tax boroom du dégg ak waar du dellu ci boroomam su yàggee nag te boroom faju ko dafay mujj wopp su woppee te fajuñu ko bu yàggee dafay dee su deeyee nag mooy koo xam ne mooy nekk yéefar ci xolam wopp mooy naafeq julit nak xolam man na wo rek way bu agge ci nak ci wop su boba lolu eh, naa fekk la ko jural bu ko faju bu dee dañu nak nekk fat wala yaas billahi taala kon bakar kon lu bon la suñ borom yi wax ci alquran fa waylun lil qasit qulubuhum zikrillah ñi nga xamne ne seen xol dafa waw ba duñu tala tuddu yalla buñu len waré duñu ko deg nee na ñooña toskare ñeel na len kon bakar day day waral day wowal xol neena na tam euh day tax su bare bu ëpp te borom tuubul da koy yóbbu ci ak texeedi da koy yóbbu ci mu àgg ci dañ koy dàkku ci buntu sunu borom subhanahu wa taala mën naa àgg ci ñu xañ ko bépp sabab buy waral yërmande yàlla lu mel ni xañ ko kàttanuk jaamu yàlla wala kàttanuk bàyyi ay moy moo tax ñu wax ne képp koo xam ne julli mbooloo faat na la ku amul kàttanu julli ji ca mbooloo ma te jege fañ koy jullee nee na kooku am na bàkkaar yu mu def yu dox diggante mag loola ñu ne bari na koo xam ne daa ku daa julli guddi bu amee bis mënu ko def ñàkkul bàkkaar bu mu def bu ko tee mën a julli guddi koo xam dafa tëlee jàng alquran ñàkkul bàkkaar bu mu def ñàkkul xool bu mu xool bu ko tee mën a jàng alquran kon bàkkaar dafay tee day gàllankoor nit ki ba du mën a jëf lu koy tax yàlla yërëm ko bàkkaar itam kon day indi ak noono ci diggante jaam bi ak sunu boroom subhanahu wa taala xam ngeen ne yàlla dafa am ay xarit waaye itam dafa am ay noon kii def ay bàkkaar te tuubut bu saxee ca loola ba yàgg mën na koo jural mu nekk noonu yàlla subhanahu wa taala yàlla ci yàlla musal jëf bàkkaar day àgg ci kon tax nit ki yàlla mere ko su ko yàlla meree nag la ca topp kon mooy mbugal kon yooyu yépp tuub mooy tax nit ki mucc ci sëñ tubaa sax mi ngi xamal ne bàkkaar dana tax yàlla daal di mbugal nit ki fii ci àdduna te du xaar sax muy dem alaxira mu ne boroomi bàkkaar lépp lu ko dal ci ay tiis ak ak ak ci àdduna si mbugal la mu ko yàllay teg gépp xéewal gu mu am ginnaaw mi ngi mooy bu amee xéewal xéewal googa du xéewal ci moom waaye ak jay la ak pexe mu ko yàllay fexeel ngir bëkkoo mbugal mbugal mu metti mu ne nag boroomi bàkkaar kon mooy safaanu kuy topp kooku moom natt bu ko dal da koy dolli toyaaba ak di ko miisloo àdduna waaye xéewal gu ko dal teraanga la ju ko yàlla defal ak xemmem loo gu mu koy def kon bàkkaar kon loolu lay wàññi wala bokk na ci li muy wàññi kon tuub nag mooy musal nit ki ci musiba yooyu nga xam ne sax ci bàkkaar moo koy indi tuub it mooy tax lépp lu jafewoon nit ki daal di koy yomb moo xam taw la maanaam bu fekkee ni dañoo nekk ci bekkoor nek ci ñàkkum ndox bu ñu tuubé tuub sal rek taw day di nga dal di am tuub day yombal alal day tax nit ñi bu ñu nekké dañu nekkon ci ñak ak jafe-jafe bu ñu tuubé tuub bu sell suñu borom day dal di ay xewal alal ji day dal di bari njabot gi dañu dal di am euh, lepp dal di ni tuub itam day waral njëggaluk suñu borom di waral yermandem di waral ak cofeelam serigne Touba sax mi ngi wax ak ñun talibé yépp di wax né yeen talibé yépp sakul naa leen jéggal ci suñu borom kon digal naa leen yeen yépp na ngeen tuub dal ci mom lakum talabtu minhu ghufranan yadum tubu maan li rabbina al qadim kon tuub lu am solo la euh motax buñu delo kon ci bindi serigne bi dañuy fekk muy denkané tuub di ja soññee ndax moy jéego bi jitu ci jéego yi nga xamné moom la nit ki jéggi ngir jëm si ci boroomam moo tax muy wax ne ki texee di dëgg-dëgg mooy kuy dund ci àdduna ba faatu yóbbaale bàkkaar te tuubu ko tuub gu sell fal haaliku shaqiyu jiddan man xaraj min haadihi dunya bi zanbin wa xaraj min qabli tawbatin nasuuxin lil ali subhanahu rabban li kursiyin ali ndax dañuy wax ne bu nit ki faatoo tey amul bàkkaar amul bor ameelul kenn àq ruuga day daal di fekki ruux yi way texee du am benn gàllankoor fa saasa lay daal di àgg su fekkee dafa am bàkkaar wala mu yoree bor wala ay àq nag dañ koy téye du mën a gun a yéeg du mën a àgg ca ruux yi texe texee faw ñu téye ko foofe ba ñu lijjanti ay borom euh, walla yàlla jéggal ko wala mu fayal ko wala yu demee noonu su ko defee mu soog di man di jot boppam soo a mën a fekki ay ay ay ay nawleem kon bakkar lu lu doy war la lu metti la lu piis la bakkar yépp nag yàlla mën na ko jéggale te nit ki sax du ko tuub su fekkee ne du bokkaale wante bu dee bokkaale nag moom tuub rek mooy tax yàlla jéggale ko euh, kon tuub lu am solo la lu war la ci bépp julit kon nañ koy nañ ci bàyyi xel tey tuub kenn du ko weesu tuub kenn du weesu tuub ndax bu ñu demee ci munawiru sudur mu ngi fekk sëriñ bi di wax ne tuub juróom-ñaari xeet la bi ci njëkk mooy tuub gi yéefar bii tuub jóge ci kéefar dugg ci lislaam ñaareel bi kon mooy tuubub jullit bu sellal bu doon def ay bakkaar yu mag tuub ko ngir sàmm kon mel na ni waxtu yi dab nañu ñu tënk foofu waxtaan yi ba beneen ñu àggale ko insha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 muy li jëm ci sàmmonteeg war may jàkka ji ñu ngi sàkku ci képp ku fi teew ci ndigal di sàmmonteeg war may barab bi ci di bañ di jéggat ak tey taxoo benn barab te bàyyi wax ca kaw ak lépp loo xam ne yelloowut ak barab bi ñu ngi koy fàttali ginnaaw loolu ñu ngi dell dellusiwaat ci waxtaan wi nga xam ne moom lañu ñu tàmbali woon keroog mu aju woon ci tomb bu am solo ci dunduk ab jullit muy tuub ñu waxoon ne tuub mooy jéego bi jëkk bees di jéggi ngir jëm ci sunu borom subhanahu wa taala it li nga xam ne mooy may jaam bi saa yu demee ba diggante ma boromam am lu fa dox mu mën a dellusiwaat mën a maroowaat ak moom tuub nag lu am solo la kon ci dunduk ab jullit waaye dafa am aw ay charte yuy daje ci tuub mu soog a nekk tuub gu sell bu ñuy nangu goo xam ne li ñuy dëxale ci tuub ci ay njariñ yépp dana ca nekk charte yooye ñeenti charte la bi ci mooy kiy tuub day tuub rek ci sagoom ci coobare ca waxtu wa nga xamee ne tuub weesoogul nga xam ne mi ngi ci man nekk ci ak tal nekk ci ak xam euh, mbugal ma it yegseegul mu daldi xalaat am tiitaange ak ragal ak yëg màggug borom bi subhanahu wa mu dellu ginnaaw ci sago tuub bayyi bakkar yépp yi nga xam ne moom la doon def euh, kon tuub ci waxtu wañ ko war a ci sago kon loolu lu mënta la ci tuub moo tax ñu naan tuub ki nga xam ne dafa jekki ba dem ba amatul pexe daan mooy ba amatul kàttanu mooy wala mu dem ba dee dikk ñu tëj buntu tuub su boobaa mu ne day tuub googu tuub du am njariñ moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne ñi nga xam ne dañuy def ay ñaawteef ba dig ba yegg si ñu sok di tuup neena na seenu tuup suñu borom du ko nangu waaye ña nangul mo ñi nga xamne ne def bakkar dañ ko doon def ci ñak xam ak ñak ak rëcc ñu daal di bañ ko defé ba noppi ñu daal di gaaw dellu ginnaaw daal di tuub fa saasa ñoña mooy ñi nga xamne ñom la suñu borom bi jéggal kon bayyi bakkar yi nga xamne ne la nit ki aji tuup ji daan def kon lolu ben sart ci sart yi bokk nañu itam mu fas yéene li ko dese lépp ci ak dundam mu ba fas yéene dootul defati bàkkaar euh, bokk na ci itam mu rëccu li nga xam ne defoon na ko lépp ci ay moy mu rëcc ko bokk na ci itam bu fekkee dafa ameeloon ay àq nit mu fexe ba dabaatal ko su fekkee ay àq la yu aju ci alal mu delloo alal ja seeni boroom su fekkee ñu ngi dund su fekkee dund ñu mu delloo ko ñe leen war a donn su gisul kenn ku ko war a donn ku mu koy delloo mu saraxe ko te yéene kooku yool ba su fekkee àq la joo xam ne dafa aju ci darub jàmbur kon war naa dem ca kam waxoon lu yellut ci daram jégglu ko balu ko àq su fekkee ne loolu jàppandiwul nag na góorgóorlu te xam ne am na àq joo xam ne faw dana ko fay mu def lu baax lu baree bari ngir mu am tuyaaba joo xam ne su ëllëgee dana ko fay ñi nga xam ne ñoom la amee loon àq loolu mooy sarti tuub tuub nag lu am solo la bari na ay njariñ lool bu ñu demee ci alquran danañu fekk suñu borom di wax ne euh, nangeen ngeen tuub tey jégglu yàlla su ngeen ko defee suñu borom dana leen defal ay xéwal fii ci àdduna ngeen nekk fi ba seen dem jot ngeen soog a dem te itam ku ci ku ku tuub tuub gu sell itam suñu borom dana ko defal ak baax dana ko baaxee am feneen fu muy wax ne ci làmm ñu yont wa rabbakum summa tuubu ilay yursili samaa alaykum midraran wa yazidkum ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin na ngeen jéggalu seen borom te tuubal ko su ko defee suñu borom dana wàcce ndox mu bari mu moo xam ne day ànd ak xéewal te itam suñu borom dañ leen dolli kàttan dañ leen dolli man-man waaye bu leen wan ginnaaw seen borom bu leen bokk ci ñi nga xam ne ay tooñkat lañ moo tax sëriñ bi radiallahu anhu wax ne lépp loo xam ne képp koo xam ne am na lu ko naqari ci boppam mu dindi tam tëkko na tuub tuub bu sell kon suñu borom dana ko defal kàttanu mu bàyyi loola nee ko am bëgg-bëggu jëf ju ba jëf lu baax te amul kàttan nga na delu ci sun borom tuub tuub bu wér su ko defee sun borom dana kàttanal ci mu def la nga xam ne moom la bëgg a def ci lu baax kon tuub dana taxa dolli ko kàttan buy tax nit a mën a jege boromam buy tax mu gën a mën a bàyyi li nga xam ne moo naqari suñu borom subhanahu wa taala ba tey mi ngi waxaat ci làmmiñu yont yàlla nuux di wax ne faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا واخنا لين نين جيغل سن بروم بو ين دافا دان لين واتيل تاو بو باركيل بو اندك اي نجارين دانا لين جوخ اي علال اكي دوم دانا لين ديفال اي دير يو نات دانا لين ديفال اي ديخ يو داو كون لو ليب سي اي نجارين توب لا بوكو kon tuub lu am solo la lu màgg la moo tax Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu bi ginnaaw bu mu waxee bàkkaar li ci nekk ci ay lor te moo waxoon ko fi keroog mu waxoon ne bàkkaar day waral xol bu wow euh, wax itam ne day waral ak texee di wax ne day waral nit ki ñu dàkk ko ci digganteem ak boroom dàkk ko ci buntu sunu borom subhanahu wa taala di waxit ne tu bàkkaar yu bari day waral nit ki ñu xañ ko lepp luy waral yermande yalla ñu xañ ko sabab yoya bam ag sax di wax ne kep ko xamne julli mbolo fat nako ko bakar bu mu def bo xamne motax munuko ko xamne daana julli guddii jekki ba yàgg mu ne da ko mënatul ba tey mu ne kooku am na bàkkaar bu mu def mu ne koo xam dafa am ngant dafa tëlee jàng alquran it am na xool bu mu xool boo xam ne moo ko teree mën a jàng alquran kon bàkkaar dafay tax nit ki du am kàttan ci jëf lu koy may yërmande yàlla subhanahu wa taala mu ne tam bàkkaar dafay waral nit ki am ak noonoo ci digganteem ak sunu borom subhanahu wa taala day waral itam bugalum yàlla day waral meram kon bakar lu doy war la lu mata muslim la wa kon kon mu ne kon bari da fay waral yoy ñu tudd yeb mu wax ne teman tam dana tax sunu borom gaawé mbugalum mbugalam ci jamm bi nga xamne moy def ay bakar te teul delu ginaaw te jajju mu ne moo tax maykatu yàlla lépp lu ko dal ci ay jafe-jafe ak tiss tiis mbugalum la mu ko sun borom gaawe waye lepp lu am ci ay xéewal itam jay gog sun borom bi jay la ngir bëgg mu gëna eh, dajé ak mbugal mu gëna metti bis bu pay ga diké mu ne nag kon safaanab kooku mooy kiy topp yàlla tey góorgóorlu tay sam koku mom lu mu dajal ci ay nattu ak jafe-jafe lu ko sun borom defal la ngir yok ay darajaam ak kawel ay maqamam way lepp lu mu am ci ay xewal tam teranga la juk sun borom defal ak soñu bu mu koy soññ ngir mu gëna am xamantef ci top ndigalul borom bi subhanahu wa taala kon tu kenn du ko wessu ndax waaye tollu ci jam jam bi fu mën di toll ci diggante borom rek amna amna ak mom moo tax bu ñu delloo ci mbind sëriñ bi daañu fekk muy wax xeeti tuub yi ak ak ci darajaam di wax ne tuub am na juróom-ñaari daraja tuub bu njëkk gi mooy tuub bi nga xam ne ab yéefar moo koy def muy tuub yéefar bi muy tuub jóge ci kéefar tàbbi ci lislaam ci coobale su ak ndimbalam tawbatu kaafirin min al kufri shadid bi izni rabbihi ila diini sadid tuubu ñaareel bi mooy tuub bi nga xam ne ki nekk jullit ba àggal moo ko def ngir ay bakkaar yu mag yu mu daa def mu dem ba jajju am tiit digganteem ak boroomam dellu ginnaaw daal di fas yéene sellal diineem tuub bakkaar yu mag yi nga xam ne moom la doon def kon loolu mooy tuub tuubu ñaareel gi tuubu ñetteel bi mooy tuub bi nga xam ne ku maandu ki moo koy def ndax wax nañu ko maandu mooy ki nga xam ne du def benn bakkaar bu mag waaye itam du sax ci jëf bakkaar yu ndaw yi kon maandu gi ñuy wax ci lislaam di wax ne ku ko mooy mat ci lislaam di wax ne itam bu dee imaam wala muy kilifa su ñaanee suñ borom dana ko nangu maandu googu mooy maandu ki nga xam ne du def bakkaar bu mag te itam du sax ci def bakkaar yu ndaw yi kon tuub googu muy tuub bakkaar yu ndaw yi muy koy rëcc mu di ko def léeg-léeg tuub googu mooy tuubu ñetteel bi moo tax sëriñ bi di wax ne wa tawbatul muxlisi min kabairi wa tawbatul uduli min saxairi tuubu ñeenteel bi mooy tuub bi nga xam ne moom la ci sax ci jaamu yàlla ki nga xam ne ak maanoom sax na ba sax mu dëgg tànkam dëgër ci jaamu yàlla moom lay tuub ci rëcc-rëcc yu ndaw ndawaan yi nga xam ne dana koy dal léeg-léeg moo tax ma ne wa tawbatul aabidi zil xayraati mimma yasuuhu min al juróomeel bi mooy tuubu ki nga xam ne daa sóobu ci yoonu yàlla di jihaar ak bakkanam di xeex ak àdduna ak seytaane ak bànneex ak lépp luy gàllankoor ci diggante ma boroomam Euh, kon tuub gi koo koy tuub ngir li nga xam ne dana ko yëg ci xolam ci ay gàkk-gàkk ak sikk loolu mooy tuubub juróomeel bi wa tawbatu saaliki liltifaati min ilalil qalbi wa min afaati juróom-benneel bi kon mooy tuubu ki nga xam ne dafa sàmm ci boo xamee ne tàbbi na ci am lënt ndax ku sàmm kooku mooy ki nga xam ne moom du def lu xaraam yonent bi dafa wax ne li xaram leer na li dagan leer na waaye diggante bi am na ay mbir yu lënt yu ci nekk yoo xam ne uh, ku ko sa ku ko bàyyi sàmm na deram sàmm na diineem waaye ku ko bàyyiwut yaa ngi mel ne kuy sàmm ci wetu tool buur ba nga cay dugg doo ko yëg kon ku maandu kooku nag mooy ki nga xam ne day tuub boo xamee ne bi tàbbi na ci loo xam lu ko lënt la ba mu ko juróom-ñaareel bi nag mooy ci àgg ci suñu borom subhanahu wa taala di jàkkaarloog màggug yàlla di ko teewlu saa su ne saa yu xolam gestoo lu toll ci benn eh, tarfata aynin rek ngir loo xam ne war na ko ginnaaw màggug borom bi su boobaa tuub ba muy tuub dellu siwaat loolu mooy tuubug juróom rek mooy wa tawbatul mushahidina tajri min ghafalatil qalbi xawfa zajri moo tax sëriñ bi di wax ne bu kenn xeet benn bàkkaar lu mu tuut na ko daal di gaaw tuub te bu mu yem ci tuub waaye na jëm na ca daal teg kafaara ko nag kafaara mooy na jëf-jëf ju baax yoo xam ne mooy far bàkkaar ba ndax alquran dafa wax ne inna alxasanaati yuzhibna sayiat jëf yu baax yi dañuy far jëf yu bon yi yonente bi sallallahu wax ne na nga ragal yàlla foo mën a nekk te boo jëfee ñaawteef na nga jëf aw yiw ca ginnaaw ba ndax mu far ko kon ki def bàkkaar ba tuub ko warul yem ci tuubu kese gi waaye dafa war a daal di jëf jëf ju baax ci wet ga yoo xam da cay fas yéene jëf jooju faral ko bàkkaar bi nga xam ne moom la defoon sëriñ bi nag tudd na ay jëf yu baax yu bari ñuy mën a jëf ngir fare ko ay bàkkaar bokk na ca julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di liggéeyal gaa yu baax na ca di toog ak ñoom jotaay bokk na ca itam di bari looy def ay istixfaar di jégglu lu baree bari rawatina jégalu gi nga xamne mom moom lañ tudd moy sangu sangub jégalu yi muy jégalu gi nga xamne ñepp ñu bari xam nañu ko muy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu ba ba mu jeex mu nek lol tam bok na ci li nga xamne luñu faral ku bëgg ak njéggal bëgg kafaara ay bakaram man na koy faral di wax bok na ci yim lim ci ñu wara di faral ay di ay bakar Euh, bari ay sabbaal nee na rawatina julli gi nga xam ne moom la ñu tuddee salaatu tasbih mooy jullik sabbaal te muy julli goo xam ne moom tam yu bari xam nañu ko nga xam ne day ànd ak ay sabbaal yu bari kon yooyu yëpp ay jëf la yoo xam ne sëriñ baa ngi koy tudd ci masaalikul ji naan waane ne ki nga xam ne dafa jëf ay bàkkaar ba tuub ko nay jëf ay xeeti jëf yu mel ni yii yu ñu mën ko faral ay bàkkaaram Euh, kon loolu lañ bëggoon a indi ci buntu tuub di ñaan sunu borom subhanahu wa mu kàttanal ñu ci jëf ak topp kàttanal ñu itam ci bàyyi ak mooy te barkeelal nu sunu dund saxal nu ci siraatal mustaqim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wala dugg ci xolu waxtaan wi ñu fàttali li ñu baaxoo daa ko fàttali mu aju ci war may barab bi ak sàmmante gu ñu war a ay tegginam. ñu ngi fàttali ñëpp ñu sàmmonte war may barab bi ci bañ a def lenn loo xam ne méngoowut ak moom ñu mel ni ki jéggat ak yëkkati kàddu ca kaw ak lépp loo xam ne rek xel àggale na ko te muy loo xam ne dëppwut ak barab bi ñu ngi fàttali loola di sàkku ñu sàmmonte ak moom ngir euh, jëm yàlla subhanahu wa taala gannaaw loolu li ñu bëgg a waxtaane tey ak baamu lay doon ci lu ñu a ñu di ci dellusiwaat ngir fàttali ak sàkku goo xam ne ñu bari itam sàkku nañu ñu dellusiwaat ci ngir yitteel gu mu yitteel muy lu aji ci mbirum sëy day bunt boo xam ne bu am solo la ci dunduk ab jullit ñu war di ko xam xam gu leer te di ko ko te tey jéem a sàmmante ak moom kon sëy ci boppam ni ñu ko xamee mooy pas-pas boo xam ne dafay boole ñaari way dencante nga xam ne su xasee am dafay tax mu dagan ci kenn ku nekk ci ñoom ñaar mu mën a jot jot ca moroomam na mu ko soobe am ay warteef yi war ci moom ci ca ca moroom ma amit ay àq yu muy jot ci ci moroom ma kon mooy pas-pas boo xam ne day boole ñaari way dencante tax kenn ku nekk ci ñoom am sañ-sañ ci sa moroom am itam ay war waru gar yola war ci sa morom moom nag atteem mooy ne lu sopp la sey kon luñu sopp la ci l'islam moy né sunna la waye nak dana man nañu wax né até l'islam yépp juromi xeeti até yépp lég lég dana ko gar ndax dana nek luñu sopp su fekké né nit ki am man gi te am ci te ñàkk koo def du ko te du ko tax a def lu xaram nga xam ne aajowut aajowoogu àgg ci su ko deful def lu xaram man na ko daal am na ci xememteef waaye ak aajo ji nag tarut ci moom ba àgg ci su ko defut mu xaram mu dana mën a def dana def lu xaram euh, kon kooku dañ ko sopp ci moom naka noonu ki nga xam ne amul ci xememteef waaye am dana ko def ngir ngir danañ ko sopp ci moom su fekkee ne daf ca yéene def lu baax lu mel ni dafa am jigéen joo xam ne da ko bëgg a takk ngir man koo aar moom jigéen jooje man koo yor mën a aar ab deram ba du dugg ci lu xaram nga xam da koy def ngir ngir dimbale kooka su boobaa loolu itam lu ñu uh, sopp la su fekkee ne nag def googu du ko tax a bàyyi loo xam ne lu ñu sopp la kon dana nekk lu ñu sopp ci ku mel noonu dana nekk lu war ci koo xam ne mën na ko am na ci it xememteef am ci aajo joo xam ne su ko defut mën naa tàbbi ci def lu xaraam kon kooku def ko day war ci moom dana nekk lu xaraam ci koo xam ne bu ko defee du ko man nga xam ne bu ko defee day lor jigéen ñam koy seqal da koy lor ndax amut lu mu ko yore mbaalam mu soxla ci moom ci àq ju ju nit nit di soxla ci moroom ma du ko ko mën a jox kon su boobaa bu ko defee day xaraam ci moom su fekkee ne jigéen ja xamu ko te nangu ko su fekkee ne kam koy seqal xam na ne moom kii mënu ko maanaam mënu koo yor góor gi mënu koo yor mbaa mënta séq ak moom la mu war a séq ak moom ci la ñuy soxla waaye xam na loolu ba noppi te nangu ah, su boobaa moom dana dootu nekk lu xaraam bu ko jigéen ci nangoo moom mi nga xam loolu àqam la kon su boobaa dana dana dana mën a nekk bu dul loolu nag dafay xaraam dana nekk lu ñu sib su fekkee ne nit ki amu ci aajo ju koy te juy tax su ko defut mu mooy yàlla amu ci itam xemmemteef te su ko defee mën na ko bàyyiloo jëf ju baax ju mu daan def joo xam ne dootu ko mënati kon su boobaa dana nekk loo xam ne sib ci moom lay doon bu fekkee yooyu yëpp amu ci nag nga xam ne amu ci aajo ju tar amu ci itam xemmemteef yéenewu ci dara ci aw yiw itam tey def gi du ko tax a bàyyi leen lu ñu sib lu ñu sopp ci moom kon su boobaa def gi day dagan rek ci moom kon ñu gis ne takk soxna kon dana nekk lu ñu sopp te loolu moo ciy cosaan man li ëpp ci nit ñi dañ ko sopp ci ñoom rek waaye léeg-léeg mu dem ba nekk farata léeg-léeg mu dem ba nekk lu ñu sib mën naa nekk itam lu haram kon juróomi attey lislaam yépp dana ci gaar léeg-léeg li tax kon yoon santaane ko maanaam fi ñu teg ne luñ sopp la mbaa farata la ñu teg ne luñ digle daal mooy li suñ borom wax ci alquran ne fankihu ma taaba lakum min annisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftumu alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum suñ borom moo wax ne na ngeen denc lu leen soob ci aw jigéen tàmbalee ci benn ñaar ñett ba ci ñeent su fekkente ne xam ngeen ne man ngeen koo yor tey mën a yemale seen diggante maandu ci seen diggante koo ci xam ne nag xam nga ne boo yoree lu ëpp kenn doo mën a maandu ci sa diggante na nga yem ci benn walla la nga boole na doon loo xam ne kon yaa ko moom moomeel ga fi amoon su boobaa kooku moom mën nga ko caa boole ak li bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yaa machara shababi man istataa minkum al baata falyatazawaj fa innahu agaddu lil basari wa axsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne yéen waxambaane yi ku ci am man-manub denc na nga ko def kon yonent bi sallallahu alayhi wa ne nee na yéen waxambaane yi ku ci am lu mu dence lu mën a yore nga takk soxna ndax mooy tax mu gën a mën a damm ab jisam mooy tax mu gën a mën a sàmm boppam koo xam ne amu nag na muñ tay faral di woor ndax koor dana mën a aar nit ki ba du tàbbi ci loolu ñuy watandiku li tax ñuy takk soxna nag maanaam li sharia sent ci kuy takk soxna ci ay njariñ mën nañ koo tënk ci juróomi yëpp ba ci njëkk mooy digle nañu ko ngir nit ki mën a aar boppam mën koo sange ndax xam nañ ne mu ñaari way dencandi kenn ku nekk ci ni yàlla bind nit soxla na moroomam soxla soo xam ne euh, du mën a mu jot ci kon moo tax ñu yoonal sëy ngir kenn ku nekk mën a jot ci moroomam mën a dagan kon bëgg kenn ku nekk muy ci góor yi muy jigéen yi ku nekk mën a faj aajo ci moroomam ci anam gu dagan mooy li jëkk ci li tax ñu yoonal sëy ñaareel ba mooy la nga xam ne moo juddoo ci sëy ci ay takk ndeer loolu tam sàkk ko dana tax ñu takk dana tax tax na ñu digle sëy yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne tanaakaxu wa tanaasalu fa indi mukaafirun bikumul umama yawmal qiyaama takk leen ay soxna tey ami doom ndax su ëllëgee dama bëgg puukareewu ci ci seen seenu bari yéen sama xeet kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg aw xeetam bari ba su ëllëgee bu teewee ci kanam yi nawleem ya di ay yonent alayhim salaatu wasalaam kenn bañ ko ëppale ak mbooloo kenn bañu ko ëppale njaboot kon des na takk soxna ko ngir am njaboot boo xam ne dañuy leen di yar ci lislaam ba bu ñu màggee nekk ñoo xam ne ñu am njariñ ci diine lañu doon nekk ñu ñuy puukare woo ëllëg loolu nag dana wuute ak gisiinu ñenn ñi nga xam ne euh, wuñu ci l'islam nga xam ne dañuy gis ne xëy na njaboot gu bari day indi coono wala day waral ñàkk wala day waral ak dellu ginnaaw loola moom bokkut ak pas-pasub l'islam ndax l'islam moom day wax ne bu fekkee nit ki seet na ba xam ne am nag man rek kon na def da cee juddoo ci ak njaboot ak moom ci boppam ñëpp yàlla moo leen di yor te moo yor seen wërsëg moo taxoon alquran di wax naan bi nga xamee ne am na ñoo xam ne ci arab yi dañ naan rey seeni doom ngir ragala ñàkk ba duñu am lu ñu dundale mu ne wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq nahnu narzuqukum wa iyaahum bu leen rey seen doom yi ndax ragalu ñàkk ndax nun yàlla noo leen di dundal yéen ñi ak ñoom doom yooyee kon ragalu ñàkk walla walla ak tumuranke wala jafe-jafe wala jàpp su nit ñi baree dootuñu am fu ñu dëkk mbaa lu ñu lekk mbaa lu ñu naan loolu moom dëppawut ak xalaatul islaam ndax yonent bi saasam moo ne dee leen takk ay soxna tey ami doom ndaxte bu ëllëgee damay puukarewu te ak sama morom yonent yi ci seenu bari kon sàkku njaboot bokk na ci li tax ñuy takk soxna ñetteel ba mooy danañ ko def ngir mën a dimbalante góor gi ak jigéen ji ñëpp ñu mën a dimbalante ba yor njaboot gi yar leen ndax njaboot dañoo aajowoo ñaari waajur yu góor ak wu jigéen kenn ku nekk am lu ko war ci ci doom ji mu def ko moroom ma def ko su defee ñu ñëpp bu ñu defee seeni warugar njaboot ga daañu mën a dund daañu mën a yaru daañu mën a tege ci yoon ba amal njariñ seen bopp amal ko seen diine amal ko seenum réew amal ko ñëpp kon dimbalante googu nga xam ne moom mooy am ci diggante góor ñaari way dencante yi ci yar njaboot gi loolu tam bokk na ci li ñuy jublu ci takk soxna xam ngeen ne ñi nga xam ci fudul keparuk sey wala ñi nga xamne sax giddu nañ ci keparuk sey waye ginaaw ba seen waaka dañoo seen seeni waaja dañoo taggo mo xam xeet taggo bu mëna doon ñaari ñoña dañ am jafé jafé ci biyar ba lu ci bari dana feeñ ci seenu seen ëlëk ak seenu nekkin ndax ñak gañ am keparuk ay waajur yu ñu bañ def ci ñom la ca war kon loolu lu am solo la ñentel ba moy dañuy yoonal sey ndax ñu mën a teg ci yoon jote bi war a am ci diggante góor ak jigéen ndax su fekkonte nañoo bàyyi rek góor ñi bàyyi rek jigéen ñi góor gum neex jigéen ja waxal ba juboo rek ngeen seq la ngeen di seq dem kenn du am lenn la war ci sa morom léegi loolu ay fitna yu bari lay jur ay jafe-jafe yu bari lay jur moo tax ñu yoonal sey teg ko ci aw yoon woo xam ne day tax góor gi am lu ko war ci jigéen ji jigéen ji itam am lu ko war ci góor gi ñu xam am na lu leen boole lu dëgër ñu soppante warmaalante yërëmante euh, suturaalante bu ko defee la cay juddoo ci ak njaboot itam am ñu leen mën a yor su ko defee lu bare bari ci di juddoo ci lori njaaloo su boobaa des na ca mën a mucc ndax nos go nga xam nos nañ ko jote bi war a am ci diggante góor ak jigéen ndax xam ngeen ne njaaloo alquran mi ngi wax ne bu leen ko jege ndax ñaawteef bu rëy la te itam yoonu bon la yonent bi sallallahu alayhi wax ne na ngeen wattu njaaloo ndax am na ñeenti sikk yu ci nekk day din day yóbbu taarub kanam maanaam njaalookat kanam gi day lëndëm du am leeru gëm leeru gëm yàlla ak jaamu yàlla du feeñ ci moom kon kanamam day lëndëm day waral merum yàlla day ñàkkal wërsëg day day taxa ñàkk wërsëg day tax day waral te merum yàlla iyaakum wa zina fa inna fihi arbaata xisaal yuzhibu lbahaa an ilwaj wa yaqtau rizq wa yusxitu rrahman ba ko ñeenteel nee na wa yujibul xuluda fi naar day tax a dëkk sawara ba faw yàlla na ci yàlla musal kon bëgg nose jote bi war a am ci diggante góor ak jigéen ci ci ak ngir ñu mën a ku nekk am lu war ci sa moroom amit àq joo am ci moom ngeen mën a dimbalante ci yar gone yi mën a soppante mën a wormaalante mën a suturaalante kon loolu bokk na ci li tax ñu yoonal sëy juróomeel bi mooy dañ ko yoonal ndax góor gi ak jigéen ji kenn ku nekk ci ñoom am fu muy noppaloo fu muy darale am xelam fu muy féexale euh, boppam ci ay coonoy jamono ndax jamono dana metti léeg-léeg ci bitti ba nga xam ne bu nit ki jógee ci bitti bu dikkee rawatina góor gi dana aajowoo ku koy defal ku koy xelal ku koy delloo siwaat loolu moo tax suñu a wax ci alquran ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma bokk na ci ay kiimaanam moom yàlla subhanahu wa taala sàkk gi mu leen sàkkal ay soxna yoo xam ne su ngeen demee ba sonn ci ñoom ngeen di dellu si dellu si ñu dalal leen féexal leen jàmmal leen delloo si seen xel ba ngeen amaat cawarte amaat xel mu dal ba mën a delluwaat ci coono ya mu def ci seen diggante nag cofeel ak yërmande mu ne loolu bokk na ci ay kii maanaam ci ñi nga xam ne dañuy xalaat kon yooyu mooy jubluwaay yi nga xam ne moom lañu jublu ci ci ci ci sëy waaye nag ginnaaw noonu lañ ko soppee noonu tam lañ ko tërale bëgguñu itam nit ki seet ku ko soob rek mu mu di ko muy ànd ak moom sharia dafa santane yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle ne kuy tak soxna wala kuy wuti borom kër na am ñoy na nga wut ku mel nangam te bu wut ku mel nangam yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bi zati dini taribat yadak neena goor ñi tak soxna ñep ñent yef lañuy xol ci jigen ba bëgg ko ben dañu gis mu am alal ñu bëkkoo takk ngir mën a jariñoo alal ja nee na wala ñu gis mu amu askan ñu bëkkoo takk nga ndax ñu dara jawoo ko wala ñu mu rafet ñu bëkkoo takk ngir taar ba wala mu am diine am jikko yu rafet ñu bëkkoo takk ngir jikko yu rafet ak diine ja mu ne waaye nag yow na nga seet ku am diine te am jikko yu rafet nga takk ko bu ca taar àndee wala askan wala alal baax na waaye bu ca loolu amut itam te diine ji am ci ak jikko ji rafet rek baax na lii ma la wax nag mu ne soo ko defut da ko gis maanaam da nga jànkoonteeg ay coono mu wax itam gu ne jigéen ji iza ataakum man tarrawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yéen ñi am njaboot gu jigéen bu nit dikkee di ñaan seen doom ngeen xool jikkoom mu mu doy leen ngeen xool ngorom mu doy leen ak diineem dangeen ko may soxna bu ngeen ko deful nag fitna ju bari aku yàqu mën na caa ñu taxawal foofu ba jàll ci ci topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu aju woon ci yi sëy waxoon nañ mooy lan waxoon nañu itam ay atem waxoon nañu lenn ci li tax chariatul islamiya yoonal ko tey nag dañoo bëgg a wax ñi nga xam ne kuy takk soxna sañoo leen a takk maanaam jigéen ñi nga xam ne dañoo xaraam ci nit ki mu takk leen ñooñu ñaari xaaj lañu xaaj boo xam ne dañuy xaraam ba faw nga xam ne kenn mënu leen a takk ba mukk ñooña buñ ko seetee ñetti xaaj lañ ñoo xam ne li leen tax a xaraam aw askan la wu woo joteeg ñoom woo xam dafa jege ba àgg mënoo leen takkante ak ñoo xam ne ak nàmp dafa dox seen diggante ñoo xam ne ak gorom le dafa dox seen diggante bu dee ñi nga xam ne askan wu jege moo dox seen diggante ba tax ab sëy du mën a dox ci seen diggante nga xam ne dañuy xaram ba faw juróom-ñaari xeet lañu ki ci njëkk mooy ndey nit ki ndey ji ko jur daf koo xaraam naka noonu ay maamam yu jigéen maam jigéen ju mën a doon ci wetu ndey wala ci wetu baay ak lu mu sori sori dafay xaraam ci nit ki ci toppaat mooy doomam jigéen ju mu jur ak ay sëtam yu jigéen yi bàyyi ko ci jëmmam ak nu ñu mën a bàyyi ak lu mu yàgg-yàgg lu mu sori sori dañ koy xaraam donte sax jur ga wuton ci yonit du tax mu dagan mu tak len kon nit ki ay doomi bopam ay doomi jigen yi bopam ak setam yi jigen yi sax ko ci mu ak luy sori sori dañ ko haram ñettel ba moy ay ay magam ak rakam yu jigéen ñim bokkal len wajur mo xam ñaari wajur yep lañ bok wala wu yi wala wu jigen yi kon ñoñu dañu ko haram ak ay bajjanam mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo waajuru góor wi ñoo sa waajuru góor ñoo bokk aw waajur ñoo bokk baay wala ndey wala ndey ak baay naka noonu jëpp jigéen yoo xam ne daa jëpp jigéen yoo xam ne ku ko jur maam la ci yow maam boo xam ne dëgg-dëgg la jigéen jooju itam lu mu sori sori dafay xaraam moom bàjjen ñooy bokk atte naka noonu ndey ju ndaw mooy koo xam ne moog waajur wu jigéen ñoo bokk ndey ak baay wala ndey rek wala baay rek kon kooku dafa xaraam ak jëpp jigéen joo xam ne sa maam da koo jur ci wetu ndey ak lu mu sori sori naka noonu doom yu jigéen yi sa mag wala sa rakk ju góor ak seeni sët lu ñu sori sori ak doom yu jigéen yi sa mag wala sarak rakk ji ak ki setam lu sori sori ñoñu la alquran di wax ne حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت kon juróom ñaari xeet yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo nit ki ngir askan wu jege wu leen boole ñi nga xam ne dañoo ci mooy jigéen joo xam ne dafa nampal nit juru ko sax waaye daf ko nampal kon nampal googu day daal di indi ak xaraamal go xam day mel ni xaraamalu askan nga xam ne jigéen jooju dañ koy day mel ni nday dëgg-dëgg nga xam ne mboolem ñi nga xam ne dañ laa xaraamoon ci ngir ngir nday jigéen jooju day daal xaraamal ñi demee noonu ñëpp ñoom itam ngir moom nga xam ne kon jëmmi jigéen ji nàmpal dafay xaraam ci kim nàmpal góor gim nàmpal ay doomam yépp dañuy xaraam kooku ay sëtam yépp ak lu ñu sori sori dañ koy xaram naka noonu ñi bokk ak jigéen jooju ci wàllu ndey ñi bokk ak jigéen jooju wenn waaju moo xam ci wàllu ndey la moo xam ci wàllu baay ñoo ñëpp dañuy xaram ki ñu nàmpal góor gi nga xam ne tam moo yor jigéen jooju nga xam ne moo nàmpale ca jamono ya muy nàmpal góor googu itam dañ koy jàppe baay ci ki ñu nàmpal donte juru ko dañ koy jàppe baayam nga xam ne mbooleem ñi nga xam ne dañoo dañ laa xaramoon ngir sa baay ngir bokk go bokk ak ñoom ci wàllu baay góor gi itam ñi bokk moom ci wàllu googu ñëpp dañ lay xaraam xaraam gu mel ni nga baay doon waral fële ci loolu kon képp koo xam ne sa bàyyi jibli boobu moo ko jur dafay xaraam yow naka noonu képp koo xam ne dafa waajur la ci bàyyi jille boobu moo xam ndeyam la wala ay maamam luñ sori sori naka noonu jigéen ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk wenn waajur wala ñu bokk ci wàllu ndey wala ci wàllu bàyyi ñëpp dañuy xaraam kon ak nàmpal day waral ak xaraam ci diggante ki ñu nàmpal ak ki ko nàmpal ak ña nga xam ne ñoo bokk ak nàmpal xaram nga xam ne mboolem ñi xaraamoon ci askan ñëpp dañuy xaraam ci nàmpal ndax alquran mooy wax ne wa ummahatukum allati ardaanakum wa axawatukum min arradaa yonente bi salaa sallam tam wax ne taxrumu bi radaati ma taxrumu min an nasab mboolem ñi nga xam ne dañuy xaraam ngir askan dañuy xaraam ak nàmpal sayyidatna Aïcha radiallahu anha ne ko izani li aflaha axi abil qoayn fa innahu ammuk ku doon nuyoo la ca kër ga ñu koy wax aflah bokkoon ak ku ñuy wax abul si nga xam ne soxnaam daa ma sa nampal sayyidatna Aïcha radiallahu anha ba mu nuyoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mën nga ko wax mu jàll ndax moo ndax sa baay la ndax moo borom këru soxna sala nampaloon ñoo bokk benn baay kon ñu déggee ci ne kon euh, soxna si fi nga xam ne moo ko nàmpal kon borom kër ba ko yoroon day yore atte baayam kon képp ku bokk ak moom day xaraam ci moom xaram gu mel ni gi nga xam ne moo doon xaraam ci ka bokkoon ak baay xaraam gi nga xam ne nag moom la ak nàmp di waral balay am day fekk nàmp gi am ci diirub ñaari at yi maanaam bi nit ki nàmp na fekk boobu ñaari atam matagul waaye su fekkee mu weesu ñaari at ba nga xam ne dëgër na nga xam ne weesuna namp bu nampete ci keneen tam du wàññi dara ñaareel ba it mooy namp gi na nekk namp gu wér lu tolloog benn macc wala ñaari macc loolu tax mu xaraam ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo wax ne laa tuxarrimu lmassatu walmassataan benn macc wala ñaari macc duñu xaraamal su ko see xaraam googu nga xam mooy am nag ci diggante ki namp ak ki nampal ak ay bokkam ci jëmmi moom mi nàmp rek lay yem waaye du jàll ci bokkam moom kon ki nàmp moom ñi bokkal ndey ak bàyyi wala bàyyi ñëpp mën nañoo jëlante ñi xaraamoon ci moom moom ndax ñoom dugguñ ci biir nàmp gi kon ñoom loola bokk ci ñoom loolu ñu wax nag ci ki nga xam ne dafa nàmpal nit ki te juru ko la ñuy wax ca bàyyi borom kër ba ko yoroon loolu la ñuy wax ci jigéen joo xam ne daf doon sëy feneen ba tàggoo fa amee fa doom juy nàmp mu jóge fa sëy ci geneen kër doom ji feragut muy nàmp nag biir buum gu bees bi kon dañuy jàpp ne baayam bi yor ndeyam ji léegi te fekk moom muy nàmp dañ koy jàpp ni baayam dëgg-dëgg kon jëmi doomi baayam doom yam am ak i bokkam yëpp ya araamoon yëpp dañuy daal di xaraam ci moom ndax boobaa ñooy bokk atte mook bàyyi dëgg-dëgg ñetteel ba ci ñi nga xamne dañuy haram ba faaw ñetteelu xaj bi moy ñi haram ngir ak borom le ka ci ñeek moy soxna baay ku ba ku sa baay ma sa yor da fay haram ni ci wota tak soxna baayam wala soxna mamam ak lu ko mam je sori sori alquran moy wax ne wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa bu len tak jigen ñi nga xamne seeni baay ak seeni ma son ñena yor ñaareel ba mooy sa soxna euh, doom sa doom ji nga jur sa doom ji nga jur sa doom ji góor soxnaam su mu bàyyi yooyu itam doo ko mën takk naka noonu soxna sa sët bu góor ak lu mu sori sori ndax alquran mooy wax ne wa xalaa'ilu abnaa'ikum alladina min aslaabikum sa ndeyi soxna ak maamam ji jigéen ju mën a doon jot bu mën a fare moom itam dafay xaraam alquran moy wax ne wa ummahatu nisaikum sa doomi jidle manam ki nga xamne ne sa soxnaa ko jur jigen ji nga xamne sa soxna moko jur jur ko geneen goor koku tam daf lay haram su fekkee ne sa soxna si waaw daf daf lay haram motax ñu wax ne wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin waaw su fekkee ne soxna si nga tak jot nga wet ak mom kon doom ji moom daf lay xaram ci wuuteeg nag bu fekkonte ne doom ji nga jëkk a takk kooku moom boo battoo ci xase am rek ndey ji day lay xaram moo tax moo xam gi am na wala dee bu fekkee ndey nag ku takk jigéen fekk mu am doom te jotuleen a wéet soo ko bàyyee mën ngaa takk doom bi waaye ku xas takk doom moom donte wéet amul boo ko bàyyee doo mën a mu ne fa in lam takunu daxaltum bihinna fala nga xam takk kon ñooñu mooy ñi nga xam ne dañoo xaraam ngir ak gorom le xaraam gu sax ba faaw eh, ña ca desit mooy ñi nga xam ne ñu xaraam ci wàllu askan wala ci wàllu naam bu dee ñi nga xam ne dañoo xaraam xaraam goo xam ne dafay am fu mu yem dafa xaraam waaye mën naa deñ moom juróom-ñaari nag des na kenn ci ñi nga xam ne dañoo xaraam ba faaw mooy almulaaxanatu mooy ku ñu rëbboonteel ku am soxnaam mu tollu barab nga dàq juusag juróom ci ci sa diggante ak doom jooja nga weddi ne juróo ko moom it soxna saxal ne yaa ko jur ngeen war a dem ci yoon yoonu lislaam nga waat ne juróo ko waat ne yaa ko jur charia moom daal di teqali seen diggante kon su boobaa jigéen jooju nga tàggoo ci anam gu mel noonu dootu leen sëyaat ba mukk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo wax ne al mutalaainaani iza ftaraqa laa yajtamiaani abada kon ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy xaraam ba faw ñi nga xam dañuy xaraam araam goo xam ne mën naa jeex juróom-ñaar lañu ki ci njëkk mooy ku bokk sa soxna ndey wala baay wala ndey ak baay kooku mënoo koo takk li feeg yaa ngi yor soxna su nga xam ne moo moo loolu waaye soo bàyyi woon soxna si wala mu faatu mu faatu woon wala nga bàyyi ko ba iddaam jeex su boobaa mën ngaa takk ki mbokkaloon benn waajur naka noonu koo xam ne bàjjan la ci sa soxna wala koo xam ne ndayam la kooku itam doo ko mën a takk li fekk yaa ngi yor soxna si su fekkee soxna si dafa faatu wala nga bàyyi ko ba itam jeex ngaa takk bàjjanam wala nga takk ndayam ju ndaw alquran mooy wax ne wa an tajmau bayna al uxtayn abu wax ne yonent bi sa alayhi wa sallam tere na kuy takk nit boole koog bàjjanam wala nga takk ko boole koog ndayam ju ndaw ñetteel ba wala ñeenteel bi ñi nga xam ne ñu xaraam xaraam goo xam ne mën naa dañ mooy muhsanatu mooy jigéen ju ne ci buumuk sëy kenn waru ko takk li fekk borom kër ba ko yoroon bàyyiwu ko ba mu ba ida jaja. jeex ka ca toppaat mooy koo xam ne dañ koo fase ñetti yoon ku fase soxnaam ñetti fase bala ko mën a takkaat faaw soxna sos day sëyiwaat ci geneen ci beneen borom kër sëyi goo xam ne du doon lu ñuy yëgoo ba borom kër boobu bàyyi ko ci sagoom wala mu faatu te fekk ñu sëyoon sëy bu wér boo xam wéetaay bu wér mat sëkk am na ca bu bàyyee nag kon sëy jeexe mën na takkaat kon ñu yem foofu ba beneen yoon ñu àggale li ci topp insha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh